abraço! production ci njiitalu Mbakan Mbeng ñoo wootee le 5 mars ci arène nationale Sa soo mu dubalee soo mu géejiwaay ci waa géejiwaay bëgg yaakaar ko wóolu ko moom lañ jël nag mbokk yi daal di koy boole ak rëg-rëg doomu papakan doomu caaro yi xale bi déggagul muñal bu bëree rek mu neex moo tax mu ne ko Sa Thiès bu ñu bëree 10 combats ma daan la 10 yëpp te benn du ci bokk moroomam Sa Thiès ni ko rëg-rëg maa la mën aller ak retour du ma la sax xalaat combat bi nag yi la koom dong ngeen ko mën a seetaanee pour yéen ñi nekk ci diaspora waa bitim réew kon nag yëf yàngoo bu fekkee ni itamit da ngeen a nekk Sénégal bëgg a seetaan entrée mbëri xool kër mbëri nu mu demee à partir de 12 heures jàpp 22 heures maanaam 10 heures de direct seen affiche dong ngeen ko mën a am prévente yi 10 euros 99 boo bàyyee nag ba le mars dañ koy jaayee 15 euros 99 Gaston production ne jour ji tribune vert ak jaune 3000 francs la billet yi di jaay tribune rouge 6000 francs annexe loge 10 000 francs francs loge officielle vingt cinq mille francs rendez baa ngi noonu mbokk yi le 5 mars la arène nationale rëg-rëg Sa Thiès ñu ci ak Gaston Production tëggkat yi en tant que major di nuyu woykat yi ñoom Mbaye di nuyu champion fi teew yëpp yëpp yëpp ak supporters yi fan club yi nuyu ñëpp Mbacke Faye ñoo ngi lay nuyu di la ziar. waaw Boucar. auzu billaahi mina seytaani rajim bismillaahi rahmaani rahim gannaaw bañ sant yàlla julli si yonent bi ñu sant suñu ñaari waajur bu baax a baax di wax jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou maa ngi sant suma sëriñ bu baax Baye Jili jégalu waa quartier bi ñëpp waaw xam naa dérangement bi maa ngi tuub di jégalu yéen ñëpp waaw di wax incha la le huit ngeen ñëw gunge ma yàlla suñu borom defal ma ndam non naka nga préparé combat bi nga am combat capital naka nga waajee komba bi. waaw Boucar combat bi waaj naa ko ah parce man dama ma fekkoon ci ay entraînement sax yaakaar naa ni parce que dama entraîné sax ba gars yi naa ma wàññi. wallaahi fekkoon na ma ci man ne ci di entraîné ne di entraîné di xam nga ba combat bi fekk ma ci ma tegaat ko ci waaw ku xool xam ne liggéey naa ko waaw. xam nga mbaru liggéey bëri. waaw xam naa ko xamul làmb nii de ah. xam naa ko xamul làmb nii quoi. mais est-ce que loolu rek wóor na waaw moo toll foofu noonu parce que xam nga nit moom ki nga xam mooy ki koo bëree rek yaakaar naa da nga koy étudier waaw di dugg di xool ay combat am di xool ay faayam di xool ay kii am daal yaa ma gën a xam yow. Madji Madji lan la gën a mel. Madji Madji waaw loolu da nga

di si ñaan yàlla suñu borom mooy weer ndam yàlla defal ma ndam mais jaam sabablu rek la am te liggéey naa li tax barki alxuraan ku ma moom dina xam ne dalante naa góor yàlla dëgg te li ko waxoon laa koy waxaat danaa ko man ngeen moo dongalee ñu ne ko kee mbër la loo a liggéey xeex bëre yëg naa din contact naa waaw bukat boo xoolee sama kanam xam ne contact naa entraîné naa bu baax di sant waa rob énergie ñëpp nag mm-hmm. gaa yëpp waaw mbëru parcelles yi fi teew yëpp maa ngi leen di sant bu baax di ci jiital suñu leader Modou Lo ko mm-hmm. ngi sant bu baax vraiment jàpp na ci combat bi mm-hmm. waaw defal na moo surprise gan ban teewaay nga maanaam ban yëg nga am si bi boobu tey bu déplacé wu ñëw teew si sa open presse waaw yëpp bi mooy maam mooy mooy leader quoi ñun Modou Lo ñu am mm-hmm. ñun Modou Lo avant ñoo doon mbër ay supporters rek ñun ñun Modou Lo lañ bëgg Modou Lo mooy suñu lépp dañ koy sant di ñëwaat Papa Sow mm-hmm. waaw ñu koy sant bu baax di ko gërëm ak mbaru parcelle yi fi teewee problème juum mm-hmm. maa leen sant ñoom ñëpp sama waa écurie mm-hmm. jegaan jegaan booy siin vieux toog Papa Soos Pape Soosé ah suma papa Serigne aw ma fayam suma waa koñ suma booy koñ yi aw ma seen fay ñoom Allah waaw ñoom Erika Bokar sama xarit sama lépp waaw di sant Black Balak sama doomu ndey. Ndamal Daaru. waaw Balak maa ngi koy sant bu baax a baax a baax wóor na Serigne Touba Bokar Balak ay millions yu bëri la def si man. ndeysaan wallaahi. ay ah. millions yu bëree bëri bëri la Balak def si man. Euh, combat bi bu nga xam ne ne Guédiawaye ak Parcelles bu ñuy bëri du yomb est-ce que combat bi xam nga dayo bi. waaw ah, xam naa dayo bi quoi. derby la de. non waaw derby la man yàgg naa bëri derby nekkul Guédiawaye tey la nekkul sama premier combat fii la man bëri naa am na ñu ma bëri géejawaay am na ñu ma bëre dëkk jàmm gën ay caaro yi fépp géejawaay lañ wax nag waaw mais waaw yàlla baax na boogar yàlla ñu yàlla may dara moom nee na waa Parcelles yegguñu waa géejawaay waaye moom yow kooku mooy loolu barki alxuraan lamb paa la ak lamb xale noonu la demee nag lamb ji xam ma rek waaw waaj nañ li ñu war a waaj nañ ñaan yàlla rek yàlla may yàlla may ta carrière lan la la jaral lamb lamb ji lan waaw lamb ji li ma jaral mooy wax naa ko entraîné naa dem naa fi ma war a dem ñaanal suma mbokk di profité ama waaw waaw ne moom mooy mag mais yow moo la ëpp doole moo la dàq bëri nee na suur loo def dalay wàccee. mu def ñaar. nee na suur si loo def moo la woote woote sa sama poids dafa wàcc hmm. wàcc naa bu baax a baax a baax parce que commencement bi ni ma meloon parce que entraînement yi dama ko jëlee woon xam nga hmm. mooy loolu mais ma dem ba ci biir xam nga commencé diis donc sama coach Pamba sama papa kooku nekkul suñu coach kooku buñu naree am dara di yàlla moom yàlla may Pamba yi kooku suñu papa la kooku papa la doom la ñu ngi koy sant di sant for énergie bi yëpp ñu leen di sant di leen waaw bu waxat li may woo rek di woo suma waa dëkk waa Jepp maa ngi leen woo bu baax a baax a baax waa ceeb aw ma seen fay ceeb lambay maxe tuguj xam waa mban maa ngi arrondissement Fatick bi yëpp waa Sine waa Bikol maa ngi sant ñëpp di leen gërëm waaw di sant waa Touba saa Touba aw ma fayam maa ngi sant bu baax di gërëm di sant waa Diofior Isa Diofior mangooy ngi sant bu baax a baax a baax a baax di sant mangoor mangoor suma xarit suma doomu ndey di sant waa Ngoy Aline Sile yëpp waaw gis naa paa yi xam nga ni ñu ci jàppee waa Ngoy Aliou Sylla yëpp maa ngi sant di leen gërëm waaw di sant suma waa waa douze di leen bu baax nag di leen wax dérangement bi xam nga maa ngi jégalu di sant suma booy suma grand Ali Tawane maa ngi koy sant bu baax di sant Sara waaw course Papis bi mii fa maa ngi koy sant bu baax suma xarit ñoom Samba Fodé Erika daal bàyyi amu seen fay maa ngi sant rendez-vous le huit waaw Production ci njiitalu Mbakan Mbeng ñoo wootee le 5 mars ci arène nationale Sa Thiès soomu dubalee soomu géejuwaay ci waa géejuwaay bëgg yaakaar ko wóolu ko moom lañ jël nag mbokk yi daal di koy boole ak rëg-rëg doomu papakan doomu caaro yi xale bi déggagul muñal bu bëree rek mu neex moo tax mu ne ko Sa Thiès bu ñu bëree 10 combat ma daan la diis yëpp te benn du ci bokk moroomam Sa Thiès ni ko rëg-rëg maa la mën aller ak retour du ma la sax xalaat combat bi nag mbokk yi live pay per view la ci seen affiche point comme dong ngeen ko mën a seetaanee pour yéen ñi nekk ci diaspora bi waa bitim réew kon nag yëf yaa ngoo bu fekkee ni itamit da ngeen a nekk Sénégal bëgg a seetaan entrée mbëri xool kër mbëri nu mu demee à partir de 12 heures jàpp 22 heures maanaam 10 heures de direct seen affiche dong ngeen ko mën a amee prévente yi 10 euros 99 boo bàyyee nag ba le premier mars dañ koy jaayee quinze euros quatre vingt dix neuf. Gaston production ne jour J turbine vert ak jaune trois mille francs la billet yi di jar turbine rouge six mille francs annexe loge dix mille francs loge officielle vingt cinq mille francs. rendez-vous ngi noonu mbokk yi le cinq mars la arène nationale Reug Reug Sa Thiès ñu ànd ci ak Gaston production.